Monsieur Claude Demba Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa nga jiite association des meuniers industriels du Sénégal euh, ñu dégg leen bu yàgg ngeen jàkkaarloo woon ak taskatu xibaar yi. farataal ñu di di leen gis euh, ngeen di wax euh, lu waral ngeen génn jamono ji waaw xam nga saa yi dafa am ay jafe-jafe yu maanaam usines yi nga xam ne ñoom ñooy wal blé di defar farine mm-hmm. euh, jànkontoor mm-hmm. xam nga bi mbas mi ñëwee mm-hmm. depuis début d'année bi euh, prix wu dafa yokk yokk bu jéggi dayo yokk boobu nag moo indi ñu toogoon ak état bi waxtaan ak moom mu xool li nga xam ni jàpp na ni war na ko ci mën a def mhm. pour que njëgu fariñ bañ a bi loolu amee mu wàññi taxam yi mhm. wàññi droit de douane yi mais loolu terewul maanaam yokk bi mën a may usines yi ñu mun cee génn mhm. waaw ñu jàppoon ni baax na ñu waxtaan ak askan bi janoowaat ak état bi pour ñu mën a mën a yóbbu prix wu farine fi nga xam ni dina tax usine bañ tëj. Mhm. léegi nag ngeen génn ndax euh, blé bi dafa yokk yéen lan ngeen namm jamono ji. Euh, li ñu namm barewul mooy li xew fépp rek xam nga àddina bi moom dafa yëngatu. Mhm. Euh, ci ñaari mbir. Mhm. mooy mbas mi waaye itam boo xoolee nawet bi dafa dafa jafe léegi. fépp ci àddina bi. ba tax prix aliment bi prix wu blé bi fi mu toll. Mhm. su ñu yokkul prix wu farine maanaam yóbbu ko dix huit mille cinq cent. Mhm. yaakaar nañ ni euh, usines yi euh, dañu tëj te dina am boroom kër yu bari yi nga xam ni foofu la ñuy mën a suturloo. Mhm. dootuñu mën a xëy. ñu ne nag baax na comme ñu ngi wax politique de l'emploi di bëgg a dëgëral industrie bi. bu fekkee waxuñu. askan bi li ci nekk. Mm-hmm. mun nañ jàpp ni euh, ñun dañuy waxantu rek. ñuy fàttali ni nag li li xew Sénégal moo xew Côte d'Ivoire moo xew Mali moo xew euh, Burkina waaye dëkk yooyu yëpp ñoom li ñu jàpp mooy état bi def ci dugal loxoom waaye terewul yokk nañu prix wu farine bi. yokk bu tax usines yi a taxaw ba léegi. ñu bëggoon a xam rek parce que yaa ngi ne c'est un peu général euh, li xew fii moo xew ci yeneen dëkk yépp kon euh, dafa am yokkute comme ni nga ko waxee euh, léegi. fan la jóge ak fan la toll. xam nga léegi boo xoolee bi ñu bi at bi ñu tàmbali. Mhm. boobu prix wu blé bi bi ñu jëkkee toog ak état bi di waxtaan ak ñoom boobu prix wu blé bi dafa yokk dem deux cent soixante dix. Mhm. euros. Mhm. bi ñu yeggee deux cent soixante dix euros ñu ni ah mbir am na ñuy def. Mm-hmm. ñu ah lenn rek moo mën a am ñu yokk prix farine bi wala yéen ngeen xool ngeen ci dugalee seen loxo. Mm-hmm. ñun itam ñu jàpp ci. Mm-hmm. ba loolu amee ci deux cent soixante dix euros bi eh, eh, état bi wàññi taxe bi yóbbu ko jëlee ko dix huit pour cent TVA indi ko six pour cent. bu ko ñu ñu yéen seen bopp lan ngeen ci mën a def ñu ni bon. waxtu bi comme euh, waxtu la boo xam ne ñëpp dañ ci war a jàpp. nañu bàyyi ñu la nga xam ne loolu lañ leen am ci saag yi maanaam ñu bàyyi suñu bénéfice teg Euh, comme ça njëgu saak di yokk mm-hmm. ñu dawal nag ba juillet bi état bi woowaatee laaj pour xool fan la mbir mi toll. Mm-hmm. ñëpp yaakaaroon ni blé dafay wàññeeku blé yokk. Mm-hmm. maanaam jógee deux cent soixante dix dem deux cent quatre vingt cinq. état bi ni waa léegi may leen ma mu xool may itam ak finance ak yëpp lan laa mën a def ba daal euh, nit ñi duñu gën a lott bu ñu gën a parce que wàññi leen charge bi daal. waaw waaw. waaye nag. Euh, defu ñu dara. Mhm. ba mois de septembre. ñu ni bon. Euh, septembre bi ñu nekk nii. septembre bii ñu nekk. Mhm. ñu blé bi yokkuwaat dem trois cent euros. Mhm. ñu ni ah trois cent euro moom jéggi na doyo léegi ñun sax euh, bu fekkee ni nañ def calcul yi xool lan la ñu mën a def pour que prix saak farine daal dañoo yokk parce que buñ koy yokkee rek. ragal nañu askan bi day gën a sonn waaye itam boulanger yi dañuy gën a sonn. ñu ne leen ayca ñu ni kon dindi nañu a dindi nañ droit de douane. Mhm. waaye li ñu fàtte mooy bu ñu nekkee trois cent euros. Mhm. fekk na gaal yi nga xam ne ñoom ñoo yeb bu trois cent euros yëpp dédouané nañ ko. xam nga mhm. kon boobu droit de douane bi dugg na bu pare. kon bu ñu wàññee foofu. doom tax bi rek la ñu wàññi waaye wàññiwuñ droit de d'accord li ci gën a yéeme nag mooy gaal yi nga xam ni ñoo ñoo costé temps yi. ya nga xam ne moom la ñu nar a jëfandikoo. moom yokkuwaat na dem trois cent vingt cinq euros. Hmm. mooy la nga xam ni même ñoom amoon nañ ci yaakaar maanaam wàññi droit de douane yi wàññi euh, TVA bi. Hmm. léegi daf def dafay xeebu. ba tax usines yi fii fi mu toll nii li ñuy jëndee. Hmm. bu fekkee prix bii lañuy ñuy jaayee. Euh, faw ñu ñu daan. te fi mu toll nii euh, jafe-jafe yi nga xam ni anoon nañ ko depuis six mois. day gën a tar. te xam nga nag euh, di jël di jaayee fukk di di di jënde fukk bu pare di jaayee juróom-ñett. di jaayee juróom. Euh, amul amul benn kër goo xam ne dina ko attan. te lii yëpp monsieur Diop mbas mee ko waral. mbas mbas mi la xam nga li ko waral dafa bari. parce que xam nga mbas mi dugg na. Mhm. waaye mbas mi dafa am yu mu yóbbaale. ak ak ak ak ak ak euh, maanaam sécheresse bi. Mhm. mais mbas mi li ci gën a yéeme mooy dafa indi maanaam ci wàllu. koom-koom yu bëri dafa xaw a mhm. jafe situation parce gaal gaal amatul conteneur amatul euh, fret bi gën a yokku euh, euh, même emballage yi dafa yokk maanaam mhm. lépp loo xam ni dafa ànd ak production boo xoolee amul dara loo xam ne ni yokkuwul ànd ak mbas mhm. looloo tax fi mu toll nii usines yi bu fekkoon dañ doon xayma rek li nga xam ni loolu lépp moo yokku mhm. amaana nañ ne eh, sac bi moom kenn dootu ko mën a jënd mhm. waaye dañ ne nañ yem rek ci blé parce comme blé moom la ñëpp xam moom la ñëpp ràññee ci wàllu farine mhm. nañu yem ci waxtaan bi ci blé bi te ba ñu dugal sax yeneen d'accord tey ci waxtaan ngeen toll mais ci biir waxtaan bi ñoo ngi dégg boobu ba tey yokk yokk loolu ndax dafa doon li ngeen di waxtaanee wala résolution bi ngeen jël pour mu am. non xam nga ñun fi toll nii li ñu bëgg xam nga li li li yéeme ci mbir mi hmm. mooy. état bi dafa tënk dafa ñu maanaam dafa lem suñu loxo. vous avez les mains liées parce que hmm. dafa ko lem parce que euh, farine maanaam du lu la neex jaayee état bi moo naan nañ toog waxtaan xool naka li lan la lay dikkee. Hmm. ak ñaata nga war a jaay. léegi nag ñun li ñu bëgg mooy ñu créer benn comité de prix nga xam ni ñi ci yi nga xam ni seen xel yëpp màcc na ci. bu ñëwee ñu tegal leen li xew dinañ xam ni. faaw ñu yokk farine bi bu fekkee bëgg nañu usines yi taxaw di ko liggéey suñu ko deful usines yi dootuñu mën liggéey dañuy tëj te bu boobaa moom la mooy yéesati parce que mburu dootul am ci dëkk bi. Mhm. tey cherté bi moo tax ngeen yuuxu ba nit ñi dégg leen mais du ñàkk industrie euh, minoterie yi ñàkkul ay jafe-jafe tey yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel bu weesoo tey li fi mbas mi bàyyi. non non jafe-jafe bi kay mooy. Euh, wax dëgg yàlla boo boo seetloo bi euh, Sénégal mosul ñàkk farine. Mhm. liggéey bi mosul taxaw. ndaxte boo xoolee bu baax usines yi tey bu fekkee ni boo xoolee li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci per bés maanaam li nit ñi soxla euh, daanaka matul sax genn wàll ci li nga xam ne war nañ ko mën a liggéey ci wàll boobu euh, Sénégal am na loo xam dëkk yu bari ñàkk mhm. waaye li nga xam ni moom la moo fi nekk tey mooy njëg yi yokk na yokk boo xamee ni bu fekkee ni wàlluwuñu usines yi maanaam jël prix wu sac jële ko seize mille yóbbu ko dix huit mille cinq cent mm-hmm. may fàttali ni ko Côte d'Ivoire bii nga xam ni moom suñu dëkkandoo la mm-hmm. ñoom sac bi ñu ngi koy jaayee vingt et un mille te terewul état bi dindi na taxe si nekk yëpp waaye vingt un mille franc lañ koy jaaye ñun nag yàpp nañ ni comme dañu tollu ci jafe-jafe nga xam ni euh, sénégalais yi lott nañu lott boo xamee ni duggi marché sax jaaxal na leen dañu jàpp ni suñu suñu suñu suñu wareef mooy bañ wuti bénéfice maanaam nañu am juste loo xam ni dana tax usines yi di liggéey ña fay nekk continuer maanaam di sàmm seen seen seen seen liggéey loolu kese moo ñu yëkkati fi mu toll nii. tey jii lan mooy doon njeexital seen yokkute. ndax sénégalais yi euh, dinañu fekkiwaat wala gisaat ne mburu mi dina yokk tey bu mëñee yi yokkee. waaw loolu nag euh, du du neex a tontu parce que bu fekkee dañu yem ci li nga xam ni moom la moom moo nekk ci kayit yi. Mhm. maanaam ñun bu ñu ko yokkee ba dix huit mille euh, cinq cent. Mhm. maanaam day xaw tollook li nga xam ni moom la calculé woon pour génne mburu cent cinquante mhm. waaye nag dafa fekk ni secteur bi li nga xam ne moom la laajoon lépp pour que euh, mburu continuer di jar cent cinquante ci prix wu dix huit mille francs mhm. day fekk loolu yëpp ñu ñu ñu defar ko mhm. waaye nag yàlla dafa def ni boulanger yi tey boo leen boo leen dégloo wala nga dem ci leen liggéeyukaay da ngay xam ni ñoom ci seen bopp Euh, donte saat bi yeggul dix huit mille ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tara tara tar mhm. ndax organisation bi nga xam ni moo moo laloon prix boobu maanaam kenn euh, jotu ko euh, maanaam tëral mhm. looloo tax ñoom ci seen bopp tey njortu nañ ñu ni bu fekkee yokk nañu njëgu saaku dinañu wax ni prix bi buñ ci tolloo te kenn maanaam defarul secteur bi il faut ñu yokk prix Euh, baguette donte sax ñoom li leen gën a farataal mooy ñu may leen ñu mën a jaay baguette yi nga xam ni moom la ñu mën a euh, teg ci marché bi maanaam euh, may leen ñu jaay baguette u deux cent francs baguette u cent francs baguette u cent cinquante hmm. te kenn bañ leen tere bu ñuy liggéey ñu ni leen yem leen ci cent cinquante te bañ a jaay deux cent bi maanaam ci marché bi loolu daal mooy li nga xam ni regal naa ni bu fekkee ni réglé ñu problème boobu bu ñu yokkee prix wu farine mun nañu xalaat ni boulanger yi mun na ni kon bu fekkee defu leen dara ñun dañuy obliger yokk parce que sinon duñ ko attan. donc chaîne bi daal ñun mën nañoo xaar yokkute fépp. déet euh, bu fekkee ni ku nekk def na li ko war. Hmm. état bi def na li ko war. am naa yaakaar ni duñ ci duñ ci toll. waaye day fekk nag état bi la mu diggee woon yëpp ak ñoom euh, mu mujj ko teg pour que boulanger yi ñoom buñ ci gis seen bopp. parce que mhm. distribution bi buñ ko réglé wul. Mhm. boulanger yi duñu mën a génn ci seen liggéey maanaam ci perte rek la ñuy tey monsieur Diop mbas mi dafa am lu mu wone muy ku nekk war naa mënal boppam tey ndax jàpp nga ne Sénégal mën na indépendant ci wàllum secteur bi ngeen nekk muy farine ndax ñun blé gi ñuy jëli di ko wuti feneen mën nañ ko liggéey ba mu mat doy seen liggéey. waaw xam nga xam nga ay gëstu mi ngi si xam nga fi mu toll nii euh, boo demee fii ci ci nord bi. Mhm. maanaam boori Fanay. Mhm. Euh, tàmbali nañ fa di fa liggéey blé. waaw ñu ngi ko ji. Euh, jàpp nañ ni variété bi nga xam ni moom lañuy indi fii. Mhm. variété la boo xam ni xaw na wuuteeg variété bi nekk Europe. donte nag du même qualité yi mais jege na ko daal. d'accord mais fi toll nii. liñ ciy bay ñu ngi ci wàllu expérience amaana bu fekkee ni euh, li nga xam ni gis nañ ko ci yaatal nañ ko mm-hmm. mais nag du doon tey euh, xam nga lu mel nii balaa muy bënn dina man presque fukki at mm-hmm. waaye fi mu toll nii waa Fanaye boo xoolee ñoom ñu ngi dundee blé ba ñuy bayee foofu waaye mm-hmm. ci biir kër yi lay yem maanaam ci lañuy def seen i sombi ci la ñuy def maanaam seen i euh, yenn plat yi ci ci blé lañ koy liggéeyee blé bi nga xamee ni usines yi soxla nañ ko pour mën a autonome kooku euh, maanaam jàpp nañ ni fek fukki at mm-hmm. maanaam du du du loo loo xam ni dina mën a nekk parce que euh, expérimentation ak maanaam production industrielle mm-hmm. nga xam ni état bi lu mu dee dee ñun daañuy soxla lu par at six cent cinquante mille tonnes xam nga kooku du loo xam ni tey da koy bay tey rek am ko tey. am ko tey sëñ bi mm-hmm. euh, Claude Demba Diop ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm. ci ci waxtaan bi. may fàttali suñu auditeurs yi ne mooy président association des meuniers industriels du Sénégal.